mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Mati Lay xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro sëñ imam Mam Thierno jàll si jottali kaddu sëñ bi may nuyu sëriñ Moustapha ak sëñ Abdoulahat ñoom ñi nga xam ni sëñ Muntaxa ñoom jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum mbokk yi Cheikh Ahmadoul Basir ñoo ngi lay nuyu di la ziar waaye la daan xew xewatina la daan am amatina kii di jël kàddu nag mooy njiitu diiwaan bi kii di jël kàddu nag mooy maam Thierno Sani mu Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni mu Sidna Ousmane mu maam Thierno Ibrahim Ndamal Darul Mouhty Serigne Bassirou sa xarit Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni moo yebal doomam ji sa mbokk sa lépp ki nga bëgg te yebalewu ko dara moo yebal doomam maam Thierno mu Cheikh Modou Kara mu Serigne Ousmane maam Thierno Ibrahim vous avez la parole. imaam kaddu gàngoog ci turu sama sayyiduna mu jammalo usmanu xatalo wal isan yuratila kitaba motela njël ma ke sayyiduna mu jammalo usmanu man xatalo wal isan yuratila kitaba motela njël ma ke sayyiduna mu jammalo usmanu man xatalo وهو الإنسان يرتل كتاب موتل جل ما سيدنا مجمل عثمان من خطل وهو الإنسان يرتل كتاب أعوذني الله من الشيطان وخاد لي منافع الأوتان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki julli di mbokki taaliba yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ci jiital a cheikh mouhamadunil muntaqa alxalifatu l aam li taifati l muridiya xafizahu llahu wa raahu di ziyaara a cheikh mouhamadul bachir ci turu cheikh mouhamadou karam Mbacké Noreyni yow ak sa mbokk yu baax yi teew ci jataay bi di am mbégte lool ci teew ci jataay bi di wax ni nag teewunu fi ngir wuutu cheikh ahmadou karam Mbacké Noreyni ndax xajul ci nun moom daf nu jox ndigal ngir nu teew ci jataay bi ànd koog jëmm ju tedd ji di Cheikh Mouhamadoul Bachir mi nga xam ni yamul ci doon doomam waaye day xaritam loolo àdduna yëpp mën nañ koo seere ah Cheikh Mamadul Bachir nag nga am lu jafe ndax Cheikh Mamadinil Muntaxa moo la wax ni la jàmbaari Serigne Touba nga sa way jur ñu tuddee ko Serigne Touba kon mu mel ni sa jàmbaari baay nga waaye sa jàmbaari maam nga muy jàmbaar ñaari yoon ah Cheikh Mamadou Mountakha nag wax jam waxoon Cheikh Mamadou Kara ni ko yow koo yëg dalaa neex waaye ñëpp la war a yëg wax jooju mel na ni dégg nga ko ndax jàpp nga sëriñ bi téye nga ko fonk nga ko moo tax ñun njabootam na nga xam ni ku ni ko ku tiiw ñu la nank tum moom Cheikh Mamadou Kara Noreyni kon bis bi ñu ko fas yéenee ànd ak yow ba na meloon daaw ku fi ñëw daaw neex na rafet na lépp jekk na waaye ku ñëw ren xam ni leen am na sa maam Cheikh Mamadou Baara ca wilaaya gu réy ga ca xam-xam bu sell ba waaye ci gëm sëriñ Tuubaa ga moo waxoon wa juróom ma Cheikh Ibra Faati borom daarul mooti ni ko tallaahi lawlaahu la nulqa zawi adabin walam nakun naxfazul qur'ana fi sigaari ya am yaa cheikhu ibrahimu misluka fi jamil fadaili la yulqa min al bashari ne ko man Cheikh Mamadou Lamine maa ngi waat ni maa ngi waat ni yow sunu baay borom daar mooti bu dul woon yow ndax dafa mbokk mi wax léegi ni Cheikh Mamadou Lamine moo doon alquran ma bëgg firnde loolu dañu ko yow sunu baay Cheikh Ibra Faati bu du toon yow a du nu mokkal alxuraan ñun njabootu sañ Tuubaa ci sunu ndaw waaye duñ ami teggin te loolu ba toon dara du ko jar ne ko nag yemoo ci doon sunu baay waaye sunu sëriñ nga te sa maas moom des di sonn rek di ko wër ko gis loolu la ko waxoon kon moom Mamadou Lamine borom cër la bopp cër yi ñëpp ay ràññeeku waaye ab cëram ci sëriñ Tuubaa yaakaar naa ni koo ko xool gis ko waaye ko ko làmb daj ko ngay koo xam ni itam mbokk yëpp naw nañ la ci sa jikko ju rafet waaye ci li ñu la bàkkee mooy fulla te fulla dafa am solo wolofi dañu wax ni soo amee fulla kenn du la foowee waaye soo doyloo kenn kenn du la mën a jënd waaye soo amee jom loo song daanee ko lii nga def jom rekk a ko man waaye boo yaru ku la gis bëgg la yow soppeem ñëpp nga waaye boo jubee na kenn du la toroxal waaye boo amee njariñ doo wéet te yow fu ñu la gis yaa ngeeg mbooloo kon ñu ngi lay sant di ñaan sa borom dëgëral la te taxaw la wasalaamu aleykum. jërëjëf Cheikh Aywa mu jërëjëf Serigne Maam Thierno bis bi nag Serigne Bassirou dafa am ñum ci rendre hommage Serigne Mohamed Mbacke Abdoul Wadoud mooy agsi noonu ci teewal ci ndigalul Serigne Moustapha Abdoul Akram fekk si Serigne Abdoul Ahad Nday ak Serigne Mountakha doomi Serigne Moustapha Abdoul Akram invité d'honneur la incha allah mu mel ni bis bi. Serigne Bass da ci rendre hommage sëriñ Assane Salam mi ñëpp xam boroom kës bu mag boobu ci lislaam ñëpp xam ko sëñ Bass Jib soppeem bëgg ko lool gëm ko teg ci Serigne Abdoul Khabir caatum Serigne Massamba teg ci sëriñ Saliou ture bu Thiès alhaaji maam bu Mamadou Kunta njabootam jël nañ kàddu léegi Serigne Moustapha Mbacké mbakke Kajoor Serigne Cheikh moom sëriñ Modou Fati Khari Serigne Bassirou moom Serigne Mor Penda di sëtub sëriñ Baara sëriñ Cheikh Fall Ndiaye Mbeng sëriñ Mouhaydine Samba Diallo sëriñ Ahmadou Ba magistrat président Iba Kolle Bawo sëriñ Amar Birane Thiam El Hadji Ale Ndiaye mi ñëpp xam El Hadji Dame Diop Mansour sëriñ Bas di ci rendre hommage El bu Njaareem sëriñ Baara Amar Jéemul El Hadji sëriñ Bamba Sadi sëriñ Basiiru Mbàkke Tiib sëriñ Sidi Cheikhouna moom sëriñ Abdoulaat sëriñ ahmadou moustapha abdou sëriñ ahmadou moustapha abdou aziz baara nekko ne di doom nekkoon fi daaw ñu bokkoon lii di organisation bi soxna maam faati mbàkke mareemaloo soxna taayiru jaxate moom sëriñ mbàkke jaxate nekkoon soxna sëriñ cheikh sayna bu mbàkke soxna amiloo gëy bu njaareem soxna bintu fall soxna anta jaw ajaa ndey faatu sekk soxna nday gëy moom it dañuy soxna Bougane Gueye dani soxna Bousso Ngom soxna Khoudia Gueye Fall soxna nday soxna Mbakke Adja Maam Faama Diop soxna Endo Mbay suñu mbokk ñii nag Serigne Bass day santaane ay kaami alquran yoo xam ne lim ci jublu mooy ñii ñëpp seeni tur day dugg ci du ñuy tëj kaami li ñu jàngal leen ñaanal leen jéggalu yàlla invité d'honneur yi nag Serigne Modou Kara Mbakke nooréy ni sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoul Akram borom aafe ki sëriñ Touba cëral boppam séddal ko boppam sëriñ Mahamadan moom sëriñ Abdoulaat mi tijji jumaa ji barki démb ca dëkkam ba ngaay jaati sëriñ Sidi Ahmed si borom jak saaw moom alaaji Abdou Aziz Dabakh Chérif ay Aydara bu ngumba ngeewul sëriñ Abdoul Malik Ñas doomu Baay Ñas kon yow li samaam digle muy wax tasimo bi hablillahi jamian wala tafarraqu dégg nga ko ñi nga xam ni nag ñooy ay niti boppam sëñ bas ku ne li la booleeg moom doo gisee muy kaf di wàcc nit ñi mooy dafa xam ni nit mun tawee su nit gaa yëpp da leen a nawloo nit mënoo yilif ay nit te nawloo woo leen tey ma yilif la tey nga yilif ñu ma ko gën gaa yi ay gaayam lañ limantee mooy jikko ju rafet waaye du alal ndax kaasee wute waaye ku xëy naan jërëjëf Mbàkke dégg nga bu baax fa bi ma rahmatan min allaahi linta lahum walaw kunta fazzan alizal qalbi lan faddu min xawlika wàcce nga sa bopp woyof nga modeste nga ubbi nga sa bopp yàlla yàlla guddal soo fan niti boppam yi nag mi ngi ciy jéetal alaaji Omar Dia moom mi nga xam ni at mu nekk ñu fàttaliku ci bis bi moom dañ koy rendre hommage à vie ci bis bi muy waajur alaaji Abdoulaye Dia at mu nekk kaamil yi moo ci jiitu ñu ñaanal ko ci ñaanal soxna Astou Dia mii fi nekk suñu borom guddal fanam te wéral ko ci turu Serigne Mamor Dia may xalifa ba ñu ngi ci woo mboolem ay rakkam yépp tàmbalee ko ci Moustapha ba ci Abdoulaye ba ci Mourou Makhtar ba ci Moustapha mu ndaw ndax kóllëre ga mi sàmm mooy alaaji Omar ja moo jëloon loxoom tekki loxol Serigne Mamor ni ko boole daal ak sama njaboot nee na loolu nag du fekki alaaji Omar ja mukk di rus kon mi ngi woo mbooleem njabootu alaaji Omar ja di ñaan yàlla yàlla yokk njëgalam foofu mu nekk alaaji Moustapha Ndiaye ku ne xam ne digganteem ak Serigne Bassirou bu Kaolack ñépp xam ko ci jëf ju baax jimi jëf ci daara ak lislaam ak lu baax di kenn ci Serigne Bassirou damaa wax ne Serigne Bassirou looy looy wax Moustapha Ndiaye wala Abdoulaye Dia bañ mu xam ko bu ko wax ndax looleen wax ñu wax ko sëñ Bas ñoo ñoom ëllëg ak amunoo la di ci woo kan alaaji Tayiru Sarr ku ne xam ne digganteem ak Serigne Bassirou xaritam la léppam la alaaji Souley jaañ mi nga xam ni dégg na njàngaleem Serigne Touba def na daara Touba def fa juma xam na bu baax ni loolu rek lañ mën liggéeyal sëñ tubaa di rakki sëñ Bas di xaritam bëgg lool sëñ Bas nag ba ñëpp xam ko ak kenn Amadou Racine si Mamadou Racine si nag day kenn ci Serigne Bas sëñ Bas du bàyyi ko fii jëm Fuuta Mamadou Racine nag mu jox ko avion spécial ngir kóllëre mag moom alaaji daam jaane taalibe Cheikh Mamadou Muntaxa moom mi nga xam ne Serigne Bas da koo bëgg mu bëgg ko ngir jëmi Serigne Touba ak ki nga xam ni mooy alaaji Farba Ngom alaaji Farba Ngom nag day wax lu rëy nee na Serigne Bassirou man rek maa am muy nekk sama kër ma di ko invité añ ak te du wax ni damaa sori wala damaa jàpp te loolu Serigne Bas fi mu koy def bariwul waaye man maa ko am loolu xéewal la lu muy def Touba Serigne Bas mii mooy buntam moo ni sëñ Bas mooy sama bunt ci yoonu murit kon alaaji Farba Ngom mi ngi koy woo ci bis bi ak Déthié Fall mi nga xam ni kenn la ci Serigne Bass di ci woo kan ki nga xam ni mooy directeur bu Senelec Pape Demba Bitèye di doomi Serigne Moussa Lakaram di doomu ndeyu Serigne Bass di xaritam di léppam ku ne gis na ni saa bu duggee tuubaa li muy njëkk a def mooy waxtaan ak Serigne Bass fu mu mën a dem ak kan Abdoulaye Dieye doomu Thiès directeur général bu AIBD ak kan Saliou Kayta DG CICES nga xam ne kenn la ci Serigne Bass ku ne xam ne ni Cissesse at baat la ñuy gis appel bii appel bii moom ni yàlla bere Serigne Touba Serigne Bara am xaas bis bi noonu la amee xaas ci bis yépp nag ndax appel bu toll nii ci bis bi rek lañ koy gis kon Saliou Kayta jërëjëf ñu ngi koy invité ci bis bi di woo alaaji Serigne Buub ak ay rakkam yépp nag ndax Serigne bas ak njaboot googu tamit dañoo seq kóllëre Modou Makhtar ak Saliou Mbuub rakkam Serigne Makhtar Naar Lo mi sëriñ xaari awa ba wóoru woon jox ko ay doomam ñu ëpp jàng fa alxuraan ba mokkal ko wala ñëpp mokkale fa alxuraan boog nee na mi ngi woowaa daaray kokki ndax sëñ bas dafa bokk ci actionnaire yi daaray kokki yi nee na du fàtte ki nga xam ni kenn la woon moom te jamono jii moom moo waxal boppam li sëriñ bas dina koy gis lu bari di ko dégg lu bari sëriñ bas jàpp ko di ko jàppale nag muy Cheikh Amar TSE sëriñ bas nee na moom da koo jàpp ngir yàlla ak jëmmi sëñ neen dafa am rakkam joo xam ne tamit du ko fàtte mukk baayam dénk ko ko muy doomu daarul moxti di suñu frère ñu fier ci moom mooy Mouhamadou Nazirou Samb yàlla yàlla dolli ko jàmm ak xéewal kon daal Serigne Bassirou mbooleem kuy xaritam Lamine Thiam bu meeru Kébémer ndax Kébémer la sëriñ Bassirou dëkk lu koor gu nekk gis nga ay toni ceeb suukar xéewal ya muy def tuuba noonu la koy defe Kébémer ndax baayam ba nag moo nekkaloon Serigne Bara Kébémer waaye nekkaloon ko l'islam yëpp Omar Bawo Siñoor ku ne xam na digganteem ak Serigne Bas taalibe Alaaji Baara bii di Xaadim Gueye bu Alaaji Baara ku ne xam na digganteem ak Serigne Basiru ak soxnaam yu baax yooyu Adja Soda Badiane kon Serigne Basiru daal ci gàttal nee na mbooleem ku musa lebal ci bis bii nga koy faysee mbooleem kum leb ku koo xam ne musulaa lebal nee na lebal ko ci bis bi li nga xam ni nag Pape Jamil Sarr def na ko muy ñetti nag ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm ndaw yooyu nag doo gisee ñu motivé wu ci sëñ bas sëñ bas daa xeeb da leen a xeebul nit ki nag soo ko xewee daanaka doo mën a jëflanteeg moom kon nag Pape Jamil Sarr ñetti nag yi jëf defal nga nu ko ñun ñëpp di taalibe Seydi Jamil sëñ Ahmada ki nga xam ni mooy euh, Mouhamed Silla di suñu doomu ndey di sëtub sëriñ Tayba mutu fa di nit ku baax dëkk Njaane ak ci nag di suñu doomu ndey suñu maam àndoon muy nit ku baax tërbiya daara yi sëñ Saliou ñëw am entreprise jàmbaar la joxe 5 millions ñu ngi koy sant di ko gërëm El Hadji Dia bu yàlla bi bu Bambey ambassadeur itinérant di kenn ci président Macky Sall waaye di kenn ci Bambey yor journal bu mag boobu El Hadji ja mooy ki nga xam ne lu sëñ Bas nekk mi ngi ci Cheikh Samba Xaya joxe na ñaari nag léegi kon nag Serigne Bas man li may yokk ci bis bi mooy Serigne Sidi Ahmed ñu ngi lay nuy bu baax yow mi fi nekkal njabootu Cheikh Mamadou Lamine nuyu njaboot sëñ Balla Coro ak sëñ Cheikh Coro kër sëñ Baara doo fa demee gis sëñ Cheikh Coro soxna Coro Maroso bi ko sëñ Moran Sali di yor buur la woon ami dak am mbooloo ami nag war a falu jaay falu nga ko yàlla tey doo demee jumaay Touba sutub Coro Maroso jiite nga dem New York nga dem Gede foo dem sutub Coro Maroso sëñ Touba ko faye loolu Coro Maroso waroon a falu eh, daal di daal daal di jaay falu nga jënde ko yàlla ñu ni ko fii nga jëm amuñu dara alxuraan rek lañ am ndax sëñ Mor Anta Sali nag mooy mooy mooy ponkal mu mag bi sëñ Tuubaa nee na ko ayaa ba ayaa man baala ahkaami yaa xaw su dalili ayaa xutbu yaa naamoosu yaa xutba zal jili la anta imaamul jili xat footoo maan kooku la coromaaroo sa jaayoon àddina dem kër googa am fa yàlla kon sëñ Bas delloo si waat nga taarix bu garaaw yàlla yàlla guddal sa bis bi mooy retrouvailles yu l'islam mooy retrouvailles yu maam maaram mooy retrouvailles yu Sénégal loolu nag xol xol xol xol moo koy maye ku so xol baaxul bu yeboo nga am am nga problème ndax doo yokk ci àddina te da nga am problème ëllëg salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf Cheikh bés bango 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci 6 ku ci bëgg ay leeral jokkool ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu